ca jamono joo xamante ni ñu bëri ci askan bi ña ngay féete Saint-Valentin soxna Aïda Diallo ak cantàkku ñoom ak cant gu rëy lañu organisé fële ca Sicap mu nekkoon ak cant gu spécial yamoo woon ak 14 février waaye tamit dëppoo woon ak bés bi nga xamante ni moom la Cheikh Béthio joxe woon soxna Aïda Diallo ab mission bu rëy ca bis boobe la joxoon cantàkku ni maanaam taalibe mii ñu jàppee Aïda Diallo comme jëmmam ji ca la ni ko woon yaay man te man may yow jàpp ci yow dëgg-dëgg mooy jàpp ci man maa noonu Cheikh Aïda Diallo def naa ko muy saba jëmm ji loolu yi day du ci dellu day mel ni nag du maa jëkk a wax loolu Sëriñ Tubaa daa waxoon ni daa wax ni Sëriñ Saaliwu moom mooy Serigne Saliou sëri Saliou dikk ne maay moom te mooy man ma dikk ni Serigne Cheikh Aïda Diallo mooy man te maay moom loolu dafay rappeler origine mu boobu ba ñëpp ma a dégg li ma wax ndax komanteer yi bari na nañu koy commenter bari na coow li bari na ñu ngi bëgg a yàq sama taalibe yi Sëriñ Tuubaa ba mu ne mooy Sëriñ Saaliw teewuloon daa amoon ay cheikh cheikh bu ci da ngaa jël sa initiative bopp du jouer sa rôle bopp néew ma indépendant nga ndax ñëpp ci Sëriñ Tuubaa la aju waaye ku ci ne amoon na doxinu boppam boo xam ni ci Sëriñ Tuubaa rekk la jëm loolee Sëriñ Tuubaa waxoon li mu wax ni mooy Sëriñ Saaliw waxul woon ci jamono mu nekk ñëpp woon ko ginnaaw topp Sëriñ Saliou da ko waxoon ngir ëllëg ngir la postérité ngir wone ni moom du fi jóge loolu ba ko waxee taxul woon Sëriñ Saliou jóg doxe di mooy Sëriñ Tuubaa xam-xam la loolu na ko ñëpp fàttaliku bu ma nee may Cheikh Aïda Diallo yi man may moom waaye gaa ñi man maa ngi dund xanaa dañ ma woon ginnaaw topp keneen ba dégg naa ñenn ci seex yi bëgg wuñu naa leen topp leen Serigne Cheikh Aïda Diallo waxuma loolu waxuma loolu ku ko comprendre noonu xamoo li ma wax Aïda Diallo potentialité la boo xam ni bu ma naa war moom la ñu war a gis waaye waxuma ma nekk jamono ñu mel ni nekk tuba yéen xanaa da ngeen maa bëgg a suul te deewuma waxuma ko kenn ku ma def seex doxal sa ceex commentaire yi nag bari na dama bëgg nit ñi noppi commentaire yi bari na nit ñi nañu noppi waxluwuma kenn que chacun ait sa propre compréhension de ma ku nekk na déggee di ma waxee te jàpp jàpp rab mais waruñoo di ko suggérer keneen ku ne la nga xalaat yaakaar ni loolu rekk la nga bëgg koo imposer ci des noppi leen ndigal laa bëgg su ma ko dégg nag benn commentaire yéenay wax waaye Serigne Cheikh Aïda Diallo ma def loolu moom amu boobu esprit bu ko amoon maa ko cay jële léegi léegi léegi bàyyi leen wax ji kii loolu juj la dama ko wax ngeen ëllëg waaye wax jile nag indi woon coow lu rëy ci biir cantakoon yi waaye rek taxul woon benn yoon ba kii di soxna Aïda Diallo découragé woon moom continué woon na mission bi nga xamante ni jëkkëram ja Cheikh Béthio Thioune moo ko joxoon lii la nag moo waral ba bisu Saint-Valentin gi mu organisé ak cant gu rëy foofee ca kër jëkkëram ja woon Cheikh Béthio te nekk ca Sicap Foire fa la dajalee cantakoon yépp ak am di jaamam yépp mu mel ni bis boobu yemoo woon ak 14 février moo ko def tey jii mu bokk ci jabar yi gën a siiw réewum Sénégal soxna ay waay soxna Ayda sëriñ bee ca jàngi nan ko wax ca kaw ragal du jam guy waaw waaw soxna Ayda Cuun jëmmi sëriñ bee ca jàngi nan ko wax ca kaw ragal du jam guy te ay mbiram far mu tënk yow yëguloo ñun li nu yëngal la benn si way ko daga la fasal jëfam ji jëf jigéen ju mën góor soxna Ayda Cuun taalibe Sëriñ Béthio mooy sunub sëriñ dogal ba way naa jàpp ci moom nangul ko noppalu ñun de neex nanu moom du fal jëm payam ñun sunu ngëm gi yokku na ñu ngi ñaan nga dolli sunu taalube yi ñoŋal nu ko ci seen ndimbal ñageel nu ko ñoo ngi leen dagaan seen yoon woor maa lay moom dëggoom gi siiw na soxna Aja Saaliw

nu bam leer jàkk rek bete luñ ko sant sunu ngëm gi yokku na ñu ngi ñaan nga dolli nu sunu taalu beegi ñoŋal nu ko ci seen ndimbal ñageel nu ko di leen di dagaan seen yërmande sax fi ba faaw coon ñun yeeslu nanu ci dëggi dëgg gi tey ñaan nangul nu ko soxna ay da yaay sunub sëriñ gëm te neex nanu samab sëriñ sunub sëriñ mu sol ay yére yu weex tàll bi ay trois heures du matin jotee nag la soxna Aïda Diallo agsi ci biir baas bi mu wàccee ci ab 4x4 ay policiers yu bëri daal di koy escorter mu ànd ak wujjëm yi ku ci mel ni soxna batoor ñu daal di former ab rang bu jub ci ay way ak i dukkat ci la leen mbooloo mi daal di teeroo googu nag nekkoon na ab xew-xew bu rëy pour soxna Aïda Diallo waaye nekkoon na tamit guléet muy organiser lu mel nii fii ci Dakar ba Cheikh Béthio génnee àdduna ak léegi comme niñ ko tàmm nag di defee taalibe cantakoon yi profité nañ ci occasion bi joxale addee ju takkoo takku kii di soxna Aïda Diallo jërëjëfaat Serigne Mbeka jërëjëfati Serigne Mbeka jërëjëfaat Serigne soxna yi dasaay yu sunu ndam soxna yi dasaay yu sunu lu ne fu ne soxna sunu lépp fépp soxna yi dasaay yu nu doy loo fii ak fi mu jëm yàlla fi yàgg lool dégg dëgg jëw ñu ngi des émission son Baye yàlla fi yàgg ëpp ndam ëpp mbég ëpp lépp fa soxna ay sa ku tedd ki ñu ngi siyaar ñu siyaar bu wér tey sant bu wér wér wér ci ndimbal lii ñu am tey ba ñëw teewoo si sa bés bii ak Serigne Touba si sant bu wér di la siyaar bu baax di siyaar euh, sa lakk bu tedd soxna euh, di asaari di tàmbalee suñu kàddu di tuub di jub si lu xam di jub si lu xam si lu xam ah, dañuy ñaan nga dimbali ñu nangu ñu suñu suuf te jéggal ñu. waaw jiw nañ la war taw suñu kër ñaata dix-neuf mille cinq cent dama jox ko ko jëwriñ park ñaata la barkal sëñ bi ñu toll si quatorze millions six cent cofeel ak euh, chocolat chef de gouche ci euh, chocolat Kit Kat ak euh, rose bii lépp ngir mandargaal suñu cofeel si suñu diggante jéem waaw lu baax lu nekk lu rafet lu nekk lépp lu baax lu nekk yéen a ko jëfandikoo ñaan leen yàlla si loolu tamit dëgg dëgg sëriñ Béthio yàlla na fi yàgg tëddee soxna Aïda Sall ci ndëgum sëriñ Béthio yàlla na fi yàgg tëddee ku tëdd ki ñu ngi ñaan ngeen yàgg tëddee di santaat bu baax ci am bi ñu am tawfeex janak sa jëmm ju tedd ji waaw di ñaan doon Idrissa Samb sa bàyyi faal bi waaw ëpp ndam sa dëkk sa jëmm yi waaw di tàmbalee kàddu yi di tuub ci li ñu xam ak ci li ñu xamoon waaw di sa taat bu baax waaw li waral jëf ji ah jëwriñ aji baaba di doon taxaw mooy sababu jëf ji waaw day mel ni daa yaa ko am yéene siyaare leen tëggam waaw mu topp ko ba mu mat waaw jëf jee nekk nii bu bu ñëw man ma ah man de yow yaay sama universel yow la soxna si boole waaw te boole na ma cofeel mu ne ma jëf ji dama koy teg sa loxo nga teg ko ci loxo njëriñ universel Idrissa Samb mu tàbbi ko ci bés bi. waaw sa jàmbaar ci njëriñ universel Idrissa Samb nee na mi lay siyaare bu baax waaw di dégg loolu ci jëf ji ndax leer na ko ni jëfu ma te jëfu waa jëf na ñëpp la waaw bu ciy sax si bu baax waaw moo tax nee na. ñu ànd ko jëwriñ aji baaba waaw barki Serigne Touba ngir rek fas yéene màndargal suñu si cofee sa jëmm ji waaw barki Serigne Touba ni ko jëwriñ lu baax lu ne yéen a ko yelloo lu taaru lu ne yéen ko yelloo lu gën lu ne yéen ko yelloo waaw ñu ciy sax bu baax waaw oto bi marque Nissan la Nissan Navara huit cylindres la waaw titan licence titan waaw ñu ngi sa saako baax ci teg waaw lépp rek ngir mën def dara suñu cofee sa jëm waaw di ñaan ngeen yàgg fi lool te jëfati gën a wér bul jooy. suuf si du doole nit. barke Sëriñ lii de da ngeen koy dogal mi ngi fekk ma tëdd di nelaw damaa tamatoo ñëw ma cat mooy cat gi jël nañ Idrissa Samb joxe leen R200 ngeen wax ba tudd ci sama tur barke Sëriñ Tuubaa bi ma yeewoo nit ñi di ma wax ma ne ah dafa tudd sama tur ñu ne ma waa ma ñëw ba si yéen ne leen de. loolee nga ko sëñ Béthio def ko sëñ Béthio la ñu kun fayeeku ma ne damaa bëgg nga dogoo ma boo dogoo ma wuti bëgg naa balaa nga ci février ma andi na oto nga téye sama loxo ya wam ne wax yoonu ma dërëm ngeen dogg li ngeen dogg soxna yi dama xëy dama damaa bëggoon rek mais man tegoon naa ne su ma amee intéressant nu mel baax na waaye naa am intéressant waaye soxna si ngeen defal ma li gën gën a rëy ci Amérique ci temps léeg da ngay daan wax benn wax naan damaa mën sa nit danga ko daan wax naan damaa mën sa nit barke Sëriñ Tuubaa soxna ay bi ku war a jënd oto oto bi jël ay millions yu bari da dencoo million nga la jënd ko ci une semaine da am boo ba topp la ci soxna ay yaay borom kun fayiku barke Sëriñ Tuubaa loolu bu suñu wax seen benn moo wax jox naa la waaye soxna si tamit profité na si occasion bi ngir fàttaliwaali taalibe cantaakun ni mission yi nga xamante ni Cheikh Béthio Thioune jox na ko dem na mu ko matal ci ay waxam nag moom soxna si mu ngi wax Cheikh Béthio dama jox ay mission avant muy génn àdduna te yile mission nag dañ koo war a matal gis naa seen njàmbarte ak dëggu gi ngeen àndal waaye dama leen di ñaax rek ngeen yokk ko ndax kat lile rek lañ mën a def ngir delloo njëkkal Cheikh Béthio Thioune mi nga xamante ni tey jii ni ñu mel lépp